دايدان بسيري والجاري تنو مسايا باي بزينو زرف دوم على سرقوا إخلاص مجاهدا بسيري والجاري تنو مسايا Sëriñ Bamba fi séeré wal taarika jaamu Bamba danno masal gëm nanu la kokoy mbégum Sëriñ Bamba fi séeré wal taarika jaamu Bamba danno masal gëm nanu la yaay jaamu Sëriñ Bamba fi séeré wal taarika danno masal faay gëm nañu la kookoy mbégum Sëriñ Bamba fi séeré wal jaari danno masa ndax fa mu commencé woon si diggante soxna may ak Sëriñ moo Mouhamadul Fadel muy bis bi nga xam ne da ko am yéenee liggéeyal Sëriñ Tuubaa Cheikh Mouhamadou Fadel joxoon ko si ndigal bernde ba nga xam ne moom la si njëkkoon a defit mu doonoon ay ganaar mu joxoon ko sëñ Fallou moo tax jamono ji Cheikh Abdoul boole suñu waajuroo sëñ Bassirou Sarr jaamu sëñ Tuubaa ak soxna May itam moom mu waroo fa mu mu waroo si bernde yooyu nga xam ne moom la moom moom moom la soxna May bernde woon sëñ Fallou mu commencé woon si ñaari ganaar jaamu sëñ Tuubaa xamaloon na ko nag ganaar yooyu li ma bëgg mooy benn bu ne ma defal la ko junni moo waral ñaari junni ganaar yi ñuy indi donte mi ngi teg sax waaye lim teg moom lu si yokk la waaye li nga xam ne mooy wartee fi moom mooy ñaari junni ganaar yi. loolu nag soxna si ñu lay xamal na leen lañ ko daan defee defee nañ ko ko xanaa kay liñ si soppi rek mooy li nga xam ne euh, li xew si jamono ji moo moo ko waral muy mbooloo mi te loolu it yaakaar naa ne amu si amu si njariñ lool lool li si am njariñ rek mooy li nga xam ne moom la sëñ bi waxante woon ak soxna May lool nag comme ni ma ko waxee léegi rek fii ak dund mi nga am dee di am rek incha allahu loolu dana am ndax ña ko waxante woon muy soxna May ak sëriñ bi Saa jaamu sëñ Tuubaa ba ñu ba ñu fi jógee ci saa yir yàgg na lool waaye boobaak léegi amul si dellu leen lu dellu gannaaw li ko waral itam mooy ñi fi wuutu soxna may sox taxawaay ba soxna may amoon dara desee wàññi ko wut ñi fi wuutu sëriñ bu jur saa jaamu sëriñ Tuubaa it muy li ko dalee ci sëriñ Sang ba ci sëriñ Saliou mi amul benn taxawaay boo xam ne jaamu sëriñ Tuubaa amoon na ko boo xam ne ñoom it dellu nañ si gannaaw moo tax lii du doon loo xam ne day mën a dellu gannaaw fii ak fii ak seeni sa ngi fi rek insha allahu lépp dana am waaye nag ñu lay seedeel cant gi nga xam ne sëriñ Saliou ak njabootu jaamu sëriñ Tuubaa gi yëpp sant nañ ko taalibe yi ndaxte am na loo xam ne si ne bu ko bu ko bu ko bu ko sëriñ amee taalibe baa tax ñu koy wax tey jumaa ji ñu jàkkaar bu fi taxawee taalibe yee ko fi taxawal ndax euh, ndax jamono ji nga xam ne Cheikh Mouhamadou Moustapha fondement na ko ba jóge fii itam bi ko sëriñ Fallou di di eggale dafa woo yëpp kenn ku ne mu sas la ne sas naa la benn million euh, loolu ba mu ba mu ba mu euh, bàyyi sëriñ Sall bi nga xam ne saa bokkoon si ñu sëñ Fallou doon sas un million ba ba ko ba ko sëñ Fallou di egg kàddu yooyu ki war a liggéey bi di jàmm sëñ Tuubaa la àndaloon sëñ Fallou xamal xamal na ko jumaa ji dañ ko war a eggale te mm, seex bu ne sas naa la un million fi mu ko koy waxee jaamu sëñ Tuubaa ngi toog si wetam dey sëñ Fallou ne ko man de sasoon naa téeméeri junni yi sëñ Fallou na ko wax leen si kaw bàyyi sëriñ na ko bàyyi sëriñ na ko kii de li mu wax leen rek la mooy bu mu amoon keneen ku mel na moom sama sas matal naa ko nga xam ne nga xam ne un million boobu ñu leen sasoon dem nañ ba teg sa ñaar fukki junni te booba xaalis jafe woon na lool la ko waral la waraloon lool nag du ndax jaamu sëñ Tuubaa lii daa doon loo xam ne dafa yàgg ci moom ba muy ne ci moom booba bàyyi sëriñ a ngi fi moo taxoon bàyyi lépp bàyyee bàyyee ko ko koy ñu nit buñ buñ bokkee si am meñ am meññetam buñ jaaree weneen yoon wu wudul lool rek dañ koy wor te bu boobaa xëy na nañ mënoon a jëriñoo man mën nañ koo mën nañ koo ñàkk jëriñoo waaye li tax ñu man ko itam du kenn ñu du taalibe yi ndax jaamu sëñ Tuubaa yàllaa ko tàggal tàggatal boppam ba pare jox ko sëñ Tuubaa muy muy muy muy ab jumtuwaayam boo xam ne si ne sañ na koo jumtu jumtu sañ na ko jëfandikoo ni mu ko neexee waaye moom it jàmm suñ Tuubaa yàlla xooyee na ko taalibe yoo xam ne si ne sañ na leen a jëfandikoo mu ko neexee amu si kenn koo xam ne si ne mën ngaa am loola neex te jëloo la nga yor lépp jox ko jàmm suñ Tuubaa fii ak defoo loolu rek amu amu amu loola neex lii nii nga xam ne mooy liggéey bi li muy rëy rëy rëy ñun njaboot gi duñ ci dara duñ ci dara xanaa dañ dañ dañ dañoo jiital rek waaye bu leen neexoon sax ñoom mën nañu si mën nañu mën nañ mën nañ mën nañ mën nañ fee bañ a teew si war lépp danañ ko def ndax li si war lépp ñoo def te li jamono ji naqare naqare amuñu si benn jafe-jafe lépp jàppandi na loolu nag ak cant la goo xam ne si ne ñu ngi la koy seedeel Serigne Saliou ak njabootu jàmm Serigne gépp ñu koy sant taalibe yi di sàkku nag nga ñaanal leen si bisu laylatul xadar bi yàlla defal leen lu kawe seen jortu ndax ñoom amuñu lu dul jaamu Serigne Touba te buñ sañoon itam yëfu jaamu Serigne Touba toujours sa kanam lay jëm te lool itam xëy na am nañu yéen a ji lool waaye dana am ndax Serigne Touba da koo nangul te Serigne Touba nangul na ko ba noppi waaye itam si eh, xabulaat da koo waxoon na ko ñag naa la ñag xam ne si ne kenn du mën a bëtt looloo waral lépp lu jaamu Sëñ Tuubaa sumboon ci sa ci kër sañ Tuubaa dara du ci yàqu ndax ñag booba lépp luy ruurub ñag rek du fa dugg ndax jaamu Sëñ Tuubaa moo ko waxal boppam moo ne Sëñ Abdou Lahad ñag na ne kenn mënu maa bëtt moom ñun fu mu toll nii mënees naa wax ne ñun ak lantinoor la ci rek waaye lépp jàpp ni na ba pare ndax sëñ Tuubaa moo moo moo ko wax moo ne yàlla nangul na ma sama ñaan njëkk ma di ko ñaan te moo moo ko wax moo ne waxati xawaa i jël li si ne daamoo fii xidmati waxab lahu maaramo jaamu sëñ Tuubaa nag li nga xam ne si ne mooy ay aajoom mooy liggéeyal sëñ Tuubaa kon tu kooku toujours loolu da koy am li nga xam ne moom lay saako itam mooy ngërëm ngërëm sëñ Tuubaa yooyu itam yaakaar naa ne toujours ko am kon daal soxna si kàddu yi mi ngi noonu. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa sëñ bi soxna si mi ngi leen di nuyu di ko tàmbalee ci soxna maam jaara mais toog di seen mag jaar si ci sa jëmm ju tedd ji nga xam ne yow la saaliwu Saliou yebal nga ànd ak. sëñ Moustapha Gaye ak Baye Gora ak imam ak bokki taalibe yi nga xam ne ñoom ngeen àndal ñëpp bàyyi ko Touba Lansar euh, mu mel na dangeen a jóge ci këram jëm si ci seen kër ma mel ne fa ngeen jóge moom mooy këram moom mi waaye yéen fii ngeen jëm si mooy seen kër mu mel na it liggéey bii nga xam ne moom ngeen liggéey te bàyyi ko ci Serigne Saliou di jëwriñu kër Serigne Basirou yàlla na fa yàgg lool te ànd ak wér ak mboolem rakkam yëpp soxna si nee na mu di ci fàttaliku waale jàmbaar joo xam ne eh, yëgam ak yitteem ak pësteefam ci laylatul xadar kenn du ko fàtte mu di Serigne Sang di ñaan sun borom mu dolli ko yërmande ak tawféex te dëkkale ko ca wetu way juróom wu sell wa nee na mi ngi siyaare njaboot gi yëpp di leen seereel yi cant ak yooyu ngërëm ak yooyu ñaan waaye nee na loolu da koy dolleewaat rek ca la soxna may daan wax sëñ Basiirou Sarr te mu fekke ko daanaka ko Basiirou ak ah, weesu na ma ak yow ak ñaan weesu na ak yow itam ak cant dama lay bàyyeeg sëñ Touba rek lu ma fay fay la ca te loolu yaakaar naa ne Baye Góore mi toog ak sëñ Moustapha mat nañ ci ay seere loole nag nga xam ne mooy liggéeyub ginaar yii damay faral di wax toujours ne taalibeb sëñ Basiirou Sarr de yi am nañ tawfeex joo xam ne buñ ko xamoon seen dund gépp buñ ko doon liggéeyal sëñ Basiiru Saar ba faatu it mënuñu koo fay ndax bi ci jëkk mooy cër biñ am ci sëñ Ibrahima Saar Njaañ nga xam ne moo njëkk a nangul sëñ tubaa moom te ba nangu jotagut ba sëriñ tubaa jël xalimaam way ko bayit yi ngeen di jàng waxoon ko ne ko Ibrahima Saar day sóori dan abadan naaru góor la wu ma fekkoon àjjana mu yeewe ma yewwi ko àjjana andi ko àdduna boole ko yow su ngeen àndee delluwaat àjjana ngeen di àndaat dëkkaat yéen ñaar loolu néewaana ñu ko sëñ Tuubaa wax te bam ko koy wax booba yoon yu melagut nii wala boog yoon wi sax taxawagut loolee doyoon na taw feex ci mbooleem ku yaakaar sëñ Ibrahima Sarr Njaañ waaye Baye sëriñ saar mi nga xam ne mooy wayjuru sëñ Basiru itam dëkk bii di Touba dañuy wax ne sëñ Baara fi njëkk a feeñee jamono waaye Baye sëriñ saar lañ fi njëkk a tudde kon loolu doyaat na jeneen tawfeex ju rëy ci njabootu Baye sëriñ saar waaye Serigne Bassirou nag ñëw am tawfeexi boppam ba mu xamee ne ñee lañ am lépp ak taalibee leen ko may mu dugg ci biir taalib gi moom moo njëkk a jaayanteeg sëñ Touba na ko man duñ seq ngay doon as gor may doon as gor na yow dangay doon as gor rek ma doonub jaam looloo mën a am jaay loolu lépp jënd ko di jaamum Serigne Touba. liggéeyal it doomi sëñ Tuubaa yëpp liggéeyal doomi sëñ Tuubaa yëpp ba am ngërëmam nee naa leen ci jamonoy Cheikh Mouhamadou Lamine Baara jëf na fi jëf joo xam ne jëfi assabul kafi rek lay fàttali jëfi asaabul kafi rek lay fàttali alxuraan nettali na ba tàyyi assabul kafi di na ay nit yàlla yu daan jaamu yàlla dëkkoon ak buur yu bon ba yàlla dogal yàlla nattu leen ñu génn dem ci àll ba nelaw ci àll ba lu mat junni at wala junni at yu tegal ban yeewoo fekk nañ àdduna ba sensé buur yooya faatu la fa xew jeex ñu daje fa ak ay buuri jullit réew ma soppeeku ñooñee ab xaj lañ àndalaaloon sëñ Basiirou Sarr yee ji mujj yónnee Seex Mouhamadou Lamine Baara mii ba mu dajalee coggal gaag lépp xaj ba ko doon sàmm sax da ko caa boole ba laaj baara na ko lii moom yaa ko njëkk a jox sëñ Touba kon loolu doy na taw feex ganaar yi nga xam ne soxna May ba koy def. xamutoon na dana dem ba mën a am ñaari junniy ginaar ndax booba bis bu njëkk ba ñaari ginaar képp te woon na ko ñaari ginaar te fu ne wut na ko fa ba sa koo am ba mu ko amee it moo ko toggal boppam jóge daaru moxti andil ko sëñ fàllu fii njox ko ko na ko li dama ciy dàkk liggéeyal sëñ tubaa ci layetul xadar loolee sëñ fàllu na ko dana barkeel ba ba nga dem ba di ci rey ay gëléem ak i ginaar yàlla baaxe baaxe sëñ Basiiru Saar waxi sëñ fàllu jooju ak soxna may fekkiwu ko waaye yàlla baaxee ko bala sëñ fàllu waxoon moom moo koy def lam ko waxoon ne ko danga dem ba ci rey ay gëléem ak ginaar ganaar yooye sun borom dogal sëñ Basiiru Sarr soxna may wax ko ci làmmiñu boppam na ko ginnaaw sëñ Tuubaa boole nañu kat bor ba ma ko lebaloon yaa koy fay yaakaar naa ne kuñ ne woon sëñ Tuubaa nee nga dem fayal ko bor sàngam su dee bakkan sa bakkan ngay ñu ko joxe rawatina bu dee alal mu ne ko bor ba ñaata la woon mu ne ko ñaari ginaar laa joxoon sëñ Tuubaa xër kay doyoon naa yam ci mu ne ko gunaar gu ne dañaa ko def téeméer li suñ borom wax ci alxuraan mooy ku ma jox benn dana la jox fukk kon mënoon na ginaar gu ne mu ne teg naa ci fukki ginaar juróom-ñeenti ginaar muy fukk mënoon na ginaar gu ne mu ne teg naa ci juróom-ñeent fukki muy téeméer waaye daf ko ne déedéet ginaar gu ne teg naa ci junni ginaar muy ñaari junni loolu fa la xir mën a yem loolee it mu di ko dox diirub dundam gépp lu mu dajale lu mu rafet rek mu it ko soxna may di gën di baagante laylatul xadar ba yàlla dogal mu wàcc ab liggéey taawam bu baax ba wutu ko sëñ sang dara manqué wu ci ba sëriñ Saliou toog di sëriñ Basirou Sarr ànd koog yéen jëf ji ku ne xam na ne ren xat na ba àgg ci lool bu dee taalibe yi nekk ci bitim réew liggéeyatuñ buñ doon liggéey it amuñu fun jaar ba indi seen alal bu dee taalibe yi ne ci dëkk bi mënatuñoo génn kenn ku nekk jaaxle waaye li soxna si waxoon mooy du ñu dégg kàddoom te yéen a ngi doon déglu kàddoom. dégg ngeen it màggal yu bari ñu ne fomm nañ ko wala soppi nañ defin wa waaye déggu leen it doom ci laylatul xadar loolu doyoon nag jaaxle ci it mën naa ngeen jortoon ne mën naa ren màggal gu laylatul xadar gi ren duñ ko def waaye comme moom ndigal lay déglu te yàlla dogal na sëriñ Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa ba sa sëriñ Moodu demee xamal ko ne ko laylatul xadar kat la ñuy dégluwaat daf ko ne laylatul xadar moom doonut luñ mën a fomm ndax ni mu wóore jullit yëpp ne ne danañ woor ni la leen wóore ne danañ laylatul xadar ku woor moom da nga laylatul xadar kon laylatul xadar doonut lu mën a fomm alxuraan ja nu mu daan tollu na ko ëpp taraanga ja nu daan tollu na ko ëpp teraanga ji dañ daan dajale nit ñi di leen ko jox léegi nañ ko sëf ci ay oto fekk leen fa jox leen ko ndax tey ji lañ ko gën a aajowoo di leen seeralawaat ak cant ci soxna maam jaara mii nga xam ne moo fi nekk nekkal leen fi te mate ko sëkk soxna astu nee na mi ngi leen di seeral ak cantam ci moom ak i ñaanam di ñaan borom bi subhaanahu wa taala yàlla na ko yàlla bàyyi ci seen kanam lu yàgg lool mu yàgg leen a jiite ngeen yàgg andi liggéey bi yàgg cee am ndamul sëñ Bassirou Sarr am ci ndamul soxna Maymuna jërë ngeen jëf neena na sedd na guy